bokk yi ñu ngi leen di nuyu fas yéene dellusiwaat ci seen pëj bii di bis na tey ngeen baaxoo di ko am diirub weeru koor yi di ci ànd ak Abou Moussa Imam Yalli fukki fan ak di ci weeru koor bis na tey la ñu rey ki nga xam ne moom mooy Muxtaar muxtaar ibnu ubayda ashaqafi ñu ko daan dakkantale aba isxaq moom muxtaar di mbokkum safiya mi nga xam ne moo nekkoon soxna seydina abdullahi ibnu omar ibnu xataab ginnaaw ba mu génnee bis na tey ngir doon xeexi jekk amawi yi ne yi moom muxtaar ñu ngi ko rey yi bis na tey fukki fan ngeent ñeent ci weeru koor atum juróom-benn fukk ak juróom-ñaar boobu mi ngi am juróom-benn fukki ak juróom-ñaar ñi ko rey di mboolam abdullahi ibnu zubayru ak musaab ibnu zubayru bis na tey fukki fan ak ci weeru koor atum 264 ci la jullit ñi moom euh, dëkk bi ñuy wax euh, Sarkuusa Sarkuusa nekk ci île bi ñuy wax saq euh, Saqaliya bis na tey fukki fan ak ñeent ci weeru koor atum 832 ci la armée mamaliki yi doon sàkku ay ndàmpaay ci seen wàllug payoor ba indi woon ay xët-xët kilifa ya bis na tey fukki fanak ak ñeent ci weeru koor ci la xalifa jullit ñi bokk ci abbas yu ne di al Maamun digaloon Ishaq ibnu Ibrahim mi nekkoon Bagdad mu digal ko ne ko bu ñuy julleeti bu ñu demee ba ci rakka yu mujj ya nañuy amal kabaruk armal loolu la ñuy dégg fiq jàpp ne bidaa la bu ñu bëggoon yoonal bis na tey la woon bis na tey fukki fan ak ñeent ci weeru koor atum 1331 ci gàddaay gi la guerre bu mag bi tàmbali woon ñu naan ko alxarbu al aalamiya al ula maanaam mooy ndorteelu première guerre mondiale loolu mi ngi tombe woon nag 14 août 1914 euh, première guerre mondiale lu ëpp weeri tund bokk nañ ci tey ñu mën koo xayma lu ëpp euh, juróom benn fukki pays dégâts yi bari woon de lu toll ci ci fukki eh, eh, millions yi soldats faatu nañ ci ñaar fukki millions ak benn am ci ay eh, gaañu gaañu première guerre mondiale ñi ko dakkal ginnaaw diisoo ko waxtaan ba déggoo am ci ca lañ ko dakkal ci juróom-benn fan ci weeru safar atum 1337 ci gàddaay gi yemoo ko 11 novembre 1918. bis na tey fukki fan ñeent ci weeru koor atum 670 ci la borom xam-xam bu mag bi di yaxya ibnu sharaf ibnu marwi abu zakariya an-nawawi ad-damashqi daal di noppi woon ci téeréem bi nga xam ne mi ngi ko doon taalif mu nekk téere bu siiw ñu gën koo xam ci riyaadu saalihin bis na tey fukki fan ñeent ci weeru koor atum 630 ci gàddaay gi yemook 24 juin 1233 ci la malikul muzaffar faatu malikul muzaffar nekkoon ci Irbil ci Iraq nekkoon buur bu baax buur bu sàmm buur bi nga xam ne moom moo njëkk a gàmmu ci àddina bi ca Irbil la woon fukki fan ñeent ci weeru koor bis na tey ci atum 350 359 yemoo ko 20 juillet 970 ci la ñu pose première pierre maanaam teg daju njëkk ci université bu mag bi nekk ca Xaayira ñu naan ko université Azhar muy aljaami wal Azhar tabax boobee ñi tabax boobee ñi ko amal ci diirub yaari at.